jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñuy xaarati rek li nga xamante ne si moo di beneen bu nouvelle wala beneen mauvaise nouvelle ab discours njiitum réew mi mën na ne Sénégal yi patriote yi bépp Sénégal foo mën a nekk si réew mi rek wala sax bitim réew yaa ngay bàyyi xel rek loolee njiitum réew mi nar a àddu tey ji rek ak ay question yoo xamante ne si ne jël nañ ay journaliste na nar ko kaa yegge loolu nag dina soxal Sénégalais yëpp yëpp ak jamono ji situation politique ba ñu toll ana ban discours wala ban bataaxal la kooke njiitum réew mi nar a yëkkati tekk si askanu Sénégal ndax naam dafay jàpp li nga xam ne moo di élection yi wala ba tey rek dafay maintenir taxaw fa mu taxawoon. ak lu si maanaam situation bi dana gën di grave wala rek muy gën di sensé wu ndaxte nag kooke di njiitum réew ma jamono ji askanu Sénégal lañu bëgg a dégg si moom mu yëkkati ko moo di rek mu wax datub élection jàpp ko. ñu taat say dem sa ni mu gën a gaawee ak dat bu gën a jege yaakaar naa loole moom la ni xaar si moom te moom la ñuy déglu si moom ginnaaw conseil constitutionnel ba mu waxee na rek kooku di njiitum réew mi na rek jàpp li nga xam ne moo di élection yi si ab date bu jege ginnaaw nag ba mu ko précisé ñu si bëree bëri nag di ko xaar di ko sàkk si moom tey nag mun a day génn wax ñu si bëree bëri ña ngay xaar ndax maanaam di dina wax si wàllum Ousmane Sonko ak libération ak wàllum amnistie bi nga xamante ne si na rek ak wala dialogue ba tamit boo xefee tamit ñu si bëri bëri ña ngi say xaar yu mel noonu waaye nag yaakaar naa la leen gën a yitteel tamit jamono joojee lenn rek la mu di datu élection bi nga xamante ne si ne ñi ngi koy xumtoo di ko waxtaane ak bëgg ko mu jàpp ko rek si lu gaaw a gaaw moom kookee di njiitum réew mi ba tax ne askanu Sénégal jamono ji ña nga na tekk rek di taxaw ana njiitum réew mi ban kàddu la yëkkati jamono si askanu Sénégal naam bu fekkente ne na jàpp na date élection yi mu doon lu gën xayrun naam bu fekkante ne ne tamit eh, jàppul li nga xamante ne si moo di datu élection yi bu jege ndax naa na askanum Sénégal dañu way di wëngatu loolu